waaw euh, bala mhm. ñoo ngi nekkoon ci sa combat sa diggante ak euh, caatu Ndakaaru euh, jour ji ku bëri woon grand combat bi Zal Bambay ak Boy numéro 2 Boy Bawol numéro 2 Zal Bambay du Idaali moo ko tëggoon Idaali ñëngi moo ko tëggoon nu mu demee waaw arbitre sifflé génn seen diggante social bi arbitre sifflé génn suñu diggante hmm. ma tàllal ko bi maanaam arbitre sifflé rek ma tëbb ma tàmm naa raxasu suuf ma raxasu suuf faxas samay loxo tàllal sama sama sama sama loxo meg gauche mhm. ñaab benn pas ñaareelu pas mu dajeek man mu xeex mhm. ma dóor ko gauche gauche ñaari goos gauche gauche gauche taxaw armée droite bi mu mu kii fete mhm. mais première goos bi daal na mais ñoom maanaam suñuy jàppante waat sax soo seetloo maanaam bëggul jàppante waat ak man mais damaa xam ne jël na coup léegi pour mu fayu il faut mu dajeek man tant que ma teg arrangé wu ko léegi ci la armée gauche mu daw ñu daje yi mm-hmm. ñuy daje nag dama ko booleeg uppercut maanaam crossé mm-hmm. crossé bu dal ba kii bi teppeeku bi teppeeku mm-hmm. maanaam kii bi suuf bët bi teppeeku mu jàppante xam naa ne dem na ardo mais su ma ko waxee xam nga rek mooy loolu léegi ñu daw jàppante kut ko kut mu bëgg a fay ñuy dóor góos góos góos góos góos ba ma am ngemb nag bi ma amee ngemb su may defee utiliser fi may defee maanaam bëgg a def kele bi ma bëgg a def arbitre bi suuf la gis ardo bi woo ko mu dem ardo mais bi muy dem ardo yëpp ak li may doxoon si biir géew bi yëpp maa ngi xalaat li ma bàyyi sama koñ de jour boobu sama équipe bi ay euh, maa ngi nuyu waa passage waa Gueule Tapée dañ doon final nawetaan mhm. ñoom ñu keroog ñoom ñoo ko jël mhm. lépp maa ngi xalaat sama supporter yi bëggoon ñëw làmb ja dem stade wallaahi mais at bi ma tàllala sama loxo rek mu ñëw mu bëgg a ku kat ko maanaam mu bëgg a fayu si mhm. bi muy ñëw di dajeeg man moom may ko kuréel si góos bu dal kang ba mu tudd sama kaw mhm. fofu suma ko suma suma ko xajalon sax mu tudd mhm. suma ko xajalon mu tudd mais dama ne suma ko dóoree mu daanu dóoree mu daanu manki adversaire mhm. so dóoree mu daanu maa def ma ne déedéet sama non non non non manki xalat ah. wallahi après après ci la ko ci la ci la amé bi mu ko dóoree mu daw ki ci la defo mu rotation bu naa ko ca waxal mais dama ne graw ci la defal rotation ma xamné tanki baxul ma paqueté ko nga paqueté ko placage kaw plaqué dama ko paqueté daw ak

mën naa ni sax samay moroom lañu mais ñoo xamante ni xëy na benn combat ñaari komba la ñu am. kon léegi yow ñan ñooy say adversaire samay adversaire ñi ngi war a jël avance bi instant bi jàkkaarloog Balla 3 nii nii nii waaw ku ma joxoon Anaconda ma jël. Anaconda ban. bu Père Birahim. Anaconda bu parcelle. waaw école de lutte sàkku xam-xam Birahim Ndiaye. waaw ñeme woo jël avance Balla est-ce que ñeme nga jël avance su Anaconda Anaconda ci mën a bëri. bëri boobu nag laa bëgg ñu wure. a ah, ngeen wure carte sur table. yow ak Anaconda ci biir géew. waaw ngeen damyee. arbitre génn reporter bi ne attention Anaconda à gauche balle 3 à droite arbitre bi sifflé na génn seen diggante. gis ñaar ndeef looy def noo looy def wax ma looy def rek. kan looy def la mu la mu mën lay jël. Anaconda li mu mëne. tànk droite boobu xam nga eh, eh, kooku bëriwul tànk kese kooku day bëri bay bëri ci kaw air bi. déggoo li ma maanaam tànk soo déggee. day bëri bay bëri ci kaw air bi. soo déggee man la tànk. Mhm. dafa mëne soo jëlee tànkam. Mhm. du ko mëne. waaw da ciy mboot da ciy. Ah, xatar bi da ciy def yoo xam nga Anaconda. yaa ngi dégg baax kon yoo xam nga loolu nag laa a ma nee coppe tànk daf may dóor tànk. day dóor tànk. day mbot waaw suma ma tank mu naaw ram mu teg tek mu teg ne amna na ngeem am ndombali ma daw tek ko wondel ak mom rotation moom def ko def bo yaa ngi jox ben film instant yi boo xam ne koy imaginer ko xolal ma imaginer film bi Anaconda rek ak ak balatuwaat ci biir geew maa ngi imaginer instant bi film bi waaw lamoñu ñu làmb maanaam làmb ñu boole dégg gars nan ay 16 combat six combat loolu yëpp amul importance maanaam fii gis nañ fi am na ñoo xam ne ñu ngi bëre grand combat. Mhm. te defuñu sept combat. am na ñu bëre trois combat am grand combat. na ñu bëre cinq combat am grand combat. man soxlawuma grand combat man soxlawuma grand combat. naay bëreeg samay morom ñoo xam. adversaire potentiel moom nga soxla. ñoo xamante maa ngi ñoom ñooy tolloo combat. ñoo xam ne boo daanee ñu ne ñu ne yaa fi daan diw. voilà mais an mais mën nga daan anaconda. parce que Seydou ni ma leeree nit dinaa maanaam. dinaa reer incha allahu rabbi noonu laa leeree ci añ nga jógee la leeree ni di nga reer noonu la la leeree ni mën nga daan anaconda jël bu rëy boo xamante ni du jóge top 5 sax ci biir mois booy sa wax ji mi ngi waaj a bëri anaconda bala 3 mi ngi sa kaw bala 3 bu école bi bala gay mi ngi sa kaw ma loolu de joxaat ma keneen beneen adversaire defal ma rek liste 3 4 5 adversaire bu ko defee promoteur yi ñu ngi seetaan kii mu keneen keneen ki moom am na combat mais sama sir la pala la nu ma neex laa koy ñamee kooka la alliance Alliance Baldé nga naan sur le plat. barke yàlla sur le plat de. Alliance Baldé numéro 2 nga wala bébé Alliance Baldé. wala Alliance Baldé junior wala. ñoo bokk journée. Alliance Baldé bu école de lutte Habib Ndiaye. waaw Alliance Baldé bu Pikine. fekk na ko benn ñaan dinañu. waaw ma ne ko baal bi da nga ñëw ñu laalé baal mannequin bi te ngeen ñëw ñu laalé xam nga déjà yaangi togn xam nga yow da ngay togn man xam na la je te connais très bien yow Balla nga mëna togn a la dèjà de un nekk Alliance Baldé sur le plat la n'est-ce pas deuxièmement yaa ngi dugg ci vie privée nit ki naan ko ay bàyyil mannequin bi ñee ñee ñee booy dama la xamal benn affaire Alliance Baldé day jàpp gars yi di dóor ñuy daanu loolu su comité su comité waaw wala su comité na ma jël faj ko ah su li nga wax nii bu ko méttee na jël combat bi ñëw faj ko bi mu teg euh, euh, fële nu mu teg gonaas laa dajji da ngay soob barki Seydina da ngay wax lu la neex dugg na fi dugaat na fi dugg na fi dugaat bëgguma tudd ay tur parce que bëgguma frustré kenn ci samay booy mais dugg na fi dóor ñu daanu géejawaay fii soo déggee may la yóbbu naa mbër mu dóor ko mu daanu voilà yaa ngi dégg baax voilà kon yow xam nga alliance Baldé bi mu ko maanaam jour boobu mu dugg maanaam bi ma àndee ak moom mhm. alliance xamante nañ de waaw d'accord daje nañ ci àll bi man je le connais très bien man alliance je le connais très bien ba muy bëree mbapat bala muy dugg ci arène bi laa ko dalee di suivre daje nañu xombal xama bambay bu xombal la d'accord ñu xam na ko xam na bu baax booy. làmb ji ba muy toj xam na bu baax li ko toj. bala léegi damay tudd tur sax sa doom ndey. waaw sa Thiès junior. waaw moom moo dem Esat bëreeg alliance Balde. te Sa Thiès ku ko xam ci mën a bëre Bamba ku ko xam ci mën a bëre. waaw làmb waxul dëgg rek xam nga ah, ah, tey. mais mais alliance da ko dóor mu daanu. mais moo tax suñu jàppante woon ngay xam ni. ah en tout cas Bamba daal moo dem taxaw fa naan day raag la palaa la monaken la su ñëwee ma duma ko dumuy mét daan ko te dinaa la daan jël boo xamante ni yow sa àdduna Pikine dañ lay bax bàyyil alliance balde mi ngay woowee sur le plat Balla 3 bàyyil alliance balde mi ngay woowee sur le plat alliance balde c'est un lutteur c'est un excellent lutteur sama waa ji waa mbër muy taxaw di dóorante di dóor gars yi ñuy daanu kooku mënoo fi taxaw naan ma ay sur le plat la waaw su ko méttee na ma door na ma na ma jël na ma réglé na la jël waaw ragaloo mu dóor la nga daal déggoo li ma la wax alliance tànk bi muy xeexee waaw tànk bi muy teg waaw mooy sama sir la bala ah, tànk bi ngay jël mënu ma see mun mënu si mënu ma see sax fi tas déedéet la de da ngaa kontaan di wax rek caatu Ndakaaru lan la ma waxoon ay dóor boo caatu Ndakaaru ak alliance Baldé c'est pas la même chose waa léegi c'est pas caatu Ndakaaru bu bëree cinq ci la yem alliance Baldé bëri na seize xaw ma dix-sept xaw ma dix-huit combats ci arène bi booy man du ma jéebaan doomu jaa bu ma booy ma jaxaseeg samay booy. man man man na fi daan na ma jël ko. d'accord. champion la ndaanaan la bërikat la. la nante la cool boy la nante la tamit xam nga. te dégg naa ko mu ni nante yaa koy supporté. non cool boy la yaa ngi dégg baax. nante égal nante plus nante. waga géejawaay baa ngi nii bandi géejawaay baa ngi nii njëre ah, njëre bi tàppitul loolu na jël waga géejawaay bi déggoo li ma la wax dal boo dal baa su ñëwee mu ne ko dal bii dalaw la dal bu dal ba dal bii dalaw la su ñëwee mu ne ko nga moom toogal fii ah yaa koy dalal ne ko fii ngay toog su ma la déggee maanaam tey bu addu sifflé woon génn seen diggante yaa ko naan jaaral fii may manipuler ba mu neex su moytuwul sax muy ko te <laughs> mooy da ngaa baax rek da ngaa di wax rek. Seydina xam nga tey gars yi des fois nga wax ñoom ñu tànn li nga wax dëggu ñoom mais barki Seydina Mohamed adversaire yi ma la fiy limal yëpp kuñ ci indi avance am. balaa promoteur bee dem ma jënd si ndox mu sedd naan. wallaahi pare nga pour jàkkaarloog alliance Balde. Anaconda mooy pare pour jàkkaarloog Anaconda. waaw am na keneen ci say cible. Euh, Tarkinda bu tapet bi. Tarkinda bu tapet. Tarkinda bu tapet. da nga ne tarkinda ne bu tapet waa man ci li ma jàpp tarkinda bu am na parce que démb laa fa jóge ah, démb laa fa jóge jàmm gën lansaar démb laa fa jóge mais man gisuma fa tarkinda bu tapet zéro bi de tapet la kala ndaamali ndaamala noonu hmm, yow yow yow yaay tapet c'est que ñemewu turu turam kala yow ah déedéet ñaa ngi ne nga tarkindaa bi jóge ci ne ndaamali ba tey ñemewoo tudd turam turam kooku maanaam tey soo tuddee turam mu teg ne mu teg ne man dama koy wër booy yëfi tapet ngay def nii de wóor na yàlla li ngay def yëfi tapet la. junj waaw kay. yaa ngi dégg yaa ngi soog a nekkuma nekkuma mbër yoo xamante ni dañuy junj wala leen. ok li may wax ragaluma ko. laal nga laalaake nag yaa ngi soog a dugg nag. yaa ngi soog a dugg nag foo xam ne. xam nga moo tax ma ne tarkinaa bu tapet. Ah. lamsaam bu suñu am ci man ndam. te bëri naa ak seen six booy ba pare. bëree woo bëree woo bëree woo de. du caat fooraa nga bëri de daan moo koy indi woon si bu ko tànn. muy ma lay wax nii. d'accord mais bëriwu ak caat boobu maanaam waa waa eh, akamaa wóolu booy woowu waa écrit lamsar kenn bàyyiwuñu kenn ñëpp ñëw indi ko maanaam tëng ko mais du moom nga bëreel du caatu fooraa nga bëreel kooku kooku day day day day koy wóolu ci mën a bëri akamaa ko wóolu ci am fit akamaa ko wóolu ci ambiance caatu fooraa mbër bu xees maa ko dàq fecc waxal maa këpp mbooloo ah yaa wax loolu yaa wax loolu